Le message de, voilà, le message après le match contre le Burundi, Cheikh Tidiane. Donc, voilà, ñu la waxtaanee en première part. Voilà. Euh, mm-hmm. merci jërëjëf Fatou Faye euh, damay ñëw rek ci euh, euh, le match contre Burundi. Mhm. parce que euh, finalement le Sénégal a gagné par un but à zéro. Mhm. et ce but là ñëpp gis nañu match bi. Euh, mais bi mu jeexee aussitôt bi mu jeexee. Mhm. après la victoire du Sénégal 1-0 devant euh, Burundi. Euh, dafa génnee dafa def benn tweet benn tweet. moom la coach Aliou Cissé. voilà moo benn tweet tweet bi mhm. nag. waaw boo loolu moo waral sax ma ciy wax parce que dafa euh, maanaam dafa viral. Mhm. dafa réseaux sociaux ñëpp reprendre ko. ñëpp di koy commentaire. ñëpp di ciy wax. di ciy wax seen xalaat. Euh, donc euh, c'est la suite mm -hmm. des deux matchs mm -hmm. qui sont déroulés mm-hmm. et rappeler que euh, mm-hmm. euh, dans cette poule-là mm-hmm. nga xam ne ñun ñoo ko ñun Burundi Malawi ak ki Burkina c'est le Burkina qui est premier mais même nombre de points que ñun mais Burkina dafa gagné 3-1 D'accord. Voilà, loolu moo points 3-1 Burkina a marqué 4 buts encaissé 2 Sénégal a marqué euh, deux buts encaissé benn. Mhm. donc moom mooy premier donc euh, euh, kii mais nag. Mhm. Euh, balaa may ñëw ci message wu kii bi kii Aliou bi il faut bon man gisu bu kenn inquiété wu. Ah. ci qualification à la coupe d'Afrique bi. lu tax nga boobu non non non sincèrement poule boobu poule boobu yow tamit Sénégal. ak mhm. Sénégal joueur yi mu am. même bu fekkee ne entraîneur bi xam nga. loolu mbaa wóor na. non non non non non Sénégal day qualifié. Hmm. waaw c'est parce que deux mooy qualifié. bu doon benn mooy qualifié sax xaw a am kii. Hmm. mais ñaar ñooy qualifié. Hmm. non y a à la demeure. le Sénégal sera incha allah euh, deux vingt cinq dina dem Coupe d'Afrique Maroc parce que gisuma gisuma fan la. Burundi bii joué nag moom gisuma fan la lay jaar Sénégal ak Malawi te et puis il faut ngeen xam ne que Sénégal chance bi mu am ci poule bi mhm. il faut que ñu wax ko Sénégal dafa am benn chance ci poule bi xam nga mooy lan sur les trois adversaires Mmh. deux adversaires yëpp du ñu jouer à domicile. Mmh. d'accord. deux adversaires. Burkina. amul stade Mali lay recevoir. Mm-hmm. Euh, Burundi. Mm-hmm. bi muy joué contre Sénégal. mu ngi joué. Mm-hmm. fan Malawi la joué. bi muy joué ak Malawi. Malawi la joué. donc ce qui veut dire Sénégal ak Malawi rek ñoo fi am stade donc ce qui veut dire. loolu moo tax man gisuma man xalaatuma. fan la Sénégal. Hmm. même bu ñu yóbbu woon non c'est que c'est Burundi man man. Hmm. man Burkina d'accord naa. Hmm. Burkina du équipe bu ndaw war nañu ko. mais Malawi ak Burundi. bu dee ñooñu rek la ñuy xëccoo benn place ak ñooñu. ñun ñoo leen mën. d'accord ñun ñoo leen mën amul non ma dem ba. Ah, ah, kon baax na c'est yàlla dafa def ñun ci éliminatoire yi dañuy am chance di daje ak ay ay équipe xam nga li gars yi di wax naan équipe yu ndaw amul équipe yu ndaw am na. Ah, am na pour yow mais Burkina bi nga xam ne ay temps dañ ko doon. banaan déedéet ku ko wax xamul football. Ah bu njëkk ba. waral yow yow yow ah. ngay jël coupe d'Afrique. waaw. ah ki au Cameroun. Hmm. kan nga éliminé demi-finale Burkina bi difficilement. dafa joué eh, Burkina bi. Hmm. dafa joué à dix. yow nga gagné ka. Hmm. Burkina a joué une finale de coupe d'Afrique. en 2012. Mm-hmm. Burkina joué mais mën nañ considérer benn équipe ne dafa faible. Euh, amul ba ci yàgg mu jékki-jékki rek. Euh, évoluer loolu day am gisuma loolu ci éliminatoire yi fii ba deux mille vingt cinq gisuma Malawi ak Burundi fu ñuy jaar ba am évoluer bu ñu évoluer ñun ñu évoluer. Mm. d'accord bi ngay dóor France deux mille deux. Mm. ñu ko gëmoon bëriwul de. waa dëgg la xam nga xam nga xam nga xam nga loolu xam nga loolu. Mm. loolu. Euh, euh, équipe France boobu. Euh, lu am na ay explication yu bari yoo xam ne mën na ko ci wax. parce que booy xoolaat match boobu. neexul ba neexul dëgg la ñun ñoo gagné France. ñoo gagné mais France ñu dominé. daf ñu dominé ñun amuñu cordé. très bien. dans l'histoire du football Sénégal de l'équipe nationale. ñaari match la ñu mës a joué amuñu cordé mooy bii vendredi. ak 2002 contre France. Mm-hmm. amuñu cordé. Mm-hmm. amuñu ko. loolu laa lay wax mais terewul nii donc nag ñaari équipe yooyu man gisuma ci kon nag man gisuma léegi nag man ma ñëw ci. Euh, je viens sur le message. Euh, de Aliou Cissé. waaw qu'est-ce qu'il a ci message am bi lan la. Euh, message bi. mu ngi demander. Mhm. ñu mayaat ko confiance. ne ko population bi may confiance. d'accord deuxièmement. Mhm. Euh, euh, moom mu ngi wax ci biir message bi. beneen frase mooy. Mhm. Euh, j'ai donné ma vie maanaam ni ñu koy wax ci olof. jox naa leen sama mhm. bi dégg nga kii naa xaw naa pour équipe bi nag boo yooyu xam nu ñu koy waxee. Mhm. donc nag léegi nag mooy ñaar. message yoo xam ne. bon premièrement. ci. ñu jox ko confiance. non neexul ba neexul. Hmm. wax leen ma ban entraîneur. Hmm. moo yàgg ci équipe nationale. Hmm. ni Aliou Cissé yàggee amul kenn la. voilà message moo gën a yàgg daal ci ci. Euh, moo gën a yàgg ci ci banc équipe nationale. amul kenn ku fa yàgg. et dans le monde. dans le monde benn entraîneur. moo fi yàggee comme moom. xam nga mooy kan. moom mooy Lowe benn entraîneur Allemagne la. Hmm. mais ñi si des yëpp. booy xoolaat non amuñu dix ans. Hmm. moom il a at la fi def. waaw ñaata at la fi def. depuis ban neuf ans et quelques. d'accord venu en deux il est en deux mille seize. Hmm. deux mille quinze la ñëw sax deux quinze. 15 2015 li ñu foogul woon tamit te yaakaaruñu ko woon tamit ci nguuram lañ ko yàlla maye. waaw très bien voilà. Mm-hmm. loolu doo déglu ma ci euh, foofu laa lay tontu yow parce que tontu woon naa foofu. Mm-hmm. nee naa génération bi mu am amul benn entraîneur bu am chance su génération boobu. Mm-hmm. génération boobu waxoon na am quatre coupes gis nga ni Égypte yéen Égypte dominé na fii euh, kii bi Afrique. di tegle Coupe d'Afrique yi di koy tegle mm-hmm. bu ñu naan waa naar yi égyptiens yi waa mm-hmm. yow nii. Mm-hmm. xanaa ñoom ñoo mën. Sénégal loolu la waroon def. la loolu loolu loolu la loolu Sénégal waxoon. il il écoute le peuple sénégalais je vous entends et je vous vois. voilà ah, tu as vu. dañ doon wax ne du écouter mais moom nee na il écoute il entend. d'accord xam nga. xam nga lii mm. il écoute. j'ai donné ma waaw surtout boobu waaw décortiquer ba pare. pare xam nga lan moo tax ñu bëgg ko fi jëlee. xam nga euh, euh, joxe ko euh, kii maanaam confiance bi. bu hmm. bëgg kii c'est que moom li mu am. chance bi mu am biñ ko jox joxuñu ko benn entraîneur. Hmm. te man gëm naa ni am na ay entraîneur Sénégal yu mos a yore équipe nationale buñ fi toogoon huit ans. Hmm. ñu jox équipe nationale kii coupe. lu leer laa la wax. entraîneur équipe nationale yi fi nekk. dama ne ñu leen joxoon temps bi ñu ko jox moom mii. man gëm naa ne kon amoon nañ coupe d'Afrique bu yàgg. Mm. moom kon c'est pas la première fois pour moom mu njëkk a doon entraîneur Sénégal. déedéet am na ay sénégalais yu nekkoon. entraîneur boo déglu wala. si am na ci ñoo xam ne mën naa la tudd ñooñu yàgguñu fi yàquñu fi. ñaari at rek la ñu am rek dem seen yoon ñu dàqale. yooyu yenn année la. yooyu moom mooy avant avant ji. Amara Traoré du xam nga ko. waaw waaw deux ans rek la fi def mu dem yoonam. Mm. ñu dàq ka Ablaye Sarr. deux ans la presque deux ans mu ñu dàq Amsatou Fall yàggul ñu dàq am na ay entraîneurs yu bëri yoo xam ne Sénégal. yàgguñ yàgguñu fi defuñu fi am doo dig la ma laa yàgguñu fi defuñu sax ay kii noonu. muy tubaab di sénégalais yàgguñu fi. moom chance biñ ko may dëgg dëgg nag. Mhm. nañu waxante dëgg. Mhm. entraîneur am na entraîneur yoo xam ne boo leen mayee boo leen joxee cinq ans dëgg-dëgg ñu gañal la ko. Hmm. lu leer laa la wax. cinq ans entraîneur boo ko joxee cinq ans hmm. man gis naa ne ay entraîneur fii tey jii. Hmm. bu leen joxee ma jox la benn exemple. mais Malick Daaf bi yore équipe nationale U20. mais moom en moins moins de deux ans mu gagné coupe d'Afrique. Hmm. Serigne Saliou Dia. pas même pas deux ans ñu gagné coupe d'Afrique. D'accord. donc ce qui veut dire loolu moom mooy kii bi léegi man ma ñëw li muy wax ne. ba sa j'ai donné ma vie. waaw bon mais euh, bon euh, d'accord mais mais mais J'ai donné ma vie pour l'équipe nationale et je vous promets de faire tout mon possible pour laisser la sélection nationale à la place où nous avons réussi à la ramener tous ensemble au top. Ensemble, allons chercher nos derniers objectifs. C'est le début de la dernière ligne droite. Un peuple, un but, une foi. Restons unis. ah xam nga xam nga dama lay wax benn affaire. waaw euh, dama lay wax rek benn affaire boo xam ne moo am ci ci euh, message hmm. xam nga dafa man de bëggoon naa moom mu expliquer ma. Hmm. man de man man man def naa loo xam ne Aliou Cissé Aliou Cissé defu ko ci équipe pour équipe nationale. Ah, voilà tey naa ko hmm. nettali. Hmm. ndeysaan dem si yàlla Sidi. fay ci kaw mu ngi may dégg. bi ñu suspendre stade bii. Sénégal di recevoir Guinée Conakry. maa ngi koy wax sénégalais yëpp ñu bëri ñu bëri waa douzième gaynde ñoom Babacar ñii xam nañu li may wax nii. ñuy dem au lieu que man ma ne damay def report waa douzième gaynde ñu ne dañuy dem Guinée par oto xam ngeen ni yoonu Guinée bi mel billaahi wallaahi taalaa yoon bi dafa am ay montagnes yoo xam ne am ay am ay mala man ma jógee fii Sidi Lamine woo ma ma ne ko Sidi man dama bëgg def reportage dama koy def damay ànd ak euh, supporters yi def par la route def un grand reportage si dina ma déet ma insister. mu ne ma ah waa d'accord bi may dem ci buntu bi fii. bunt bu mag bii la ma Sidi Cot. ne ma ah doo bàyyi ñu jëndal la billet nga dem Sidi Lamine. doo bàyyi ñu jëndal la billet yow nga dem. lii wóorul de wóor na. Mm-hmm. ma ne ko déet maag. Ibou Ngom xamoon ngeen Ibou Ngom caméraman. waaw caméraman Ibou Ngom ñoo dem. gis nga bi ñuy dem ci yoon ba. Mhm. laajal waa douzième gaynde am na foo xam ne dañoo dem ci benn montagne. Mhm. oto bi chauffeur bi mu ne. Mhm. bu ñuy dem nu ñuy daanu. ma ne montagne dañoo mujjee dox. ñun dañoo dox bàyyi oto bi dem parce que sinon oto bi day këpp. Hmm. bi ñuy dugg bi ñuy ñëw entraînement entraînement bi ñuy dugg kii ci stade bi entraînement yooyu ñu ngi xonq cu maa ngi xonq cu hmm. poussière bi yooyu. Hmm. waaw risque boobu man j'ai donné ma vie man j'ai donné ma vie pourtant boobu mënoon naa jël avion bi. waa yow da nga risqué donc da wax donc par là moom risqué wut am benn risque. boo xam ne man doo dégg li ma wax dafa risqué pour réewam. waaw man boobu kenn fayu ma. te kenn fayu waa douzième gaynde bii. Mhm. ñoom ñu def loolu ils ont risqué leur vie. Mhm. d'accord. ils ont donné leur vie. Mhm. te moom nii li muy wax nii. waaw ah. eh, joxe bi koo xam ne dañ lay fay. tu es tu es le tu es le salarié mi yow yaa ëpp. le plus grand salarié. waaw Sénégal waaw loolu loolu loolu tu as donné <laughs> joxe fii boobu leen neex na man ñu may fay salaire ah waaw waaw waaw. yow li yow li nga gis a wax ji. waaw mooy c'est forcé pour mu joxe fii ndax. déedéet la mu saf ko ko macca ko xam aussi tamit moom am na lu mu lu ñu ko jox ak ci lu mu mel ak lu ñu ko permettre loo xamante ni du joxewul vie am ñun sax xam nañ war na ko joxe. non waxam laay kii man néew man néew ma man waxam laa wax. man waxam laa wax. waaw moom la mu wax. waaw moom la gi nga ma new ma non dama ne y a eu des entraîneurs fii la ñu nekk nekk nañ fii comme équipe nationale nii. ils sont restés un an sans salaire. te moom dajul loolu. waaw moom dajul loolu. waaw dajul ko. un an sans salaire. waaw moom dama ci condition yu baax moom. am na entraîneur yoo xam ne toog nañu fii au nom de Dieu xam nga fu ñu doon taatu Léopold Senghor kii Léopold Senghor di di tëdd ci pajaas ay entraîneur amuñu woon moyen bi amuñu woon loolu loolu moom mooy joxe ta ah, vie. ñooñu ils leur vie ñooñu ils ont leur vie kon nag wax bi nañu waxante dëgg dëgg la. dëgg la. léegi nee na mi ngi déglu Sénégalais yi. waaw waaw léegi mu ah, nag mu ngi leen di déglu. Ah, mu ngi leen di bi mu dee ba mbëkk miir. ba ah. xam na ki xam na ne léegi na il faut mu déglu Sénégalais yi. dina leen déglu de. <laughs> xam nga lu mm. lii du jaraaf du Gia du Gorée. du Teungueth Football Club du Janda xam nga la. équipe nationale la. ndéem yow yaa yore le dernier mot dëgg la yow yaa ko yore. waaye bàyyi xel nit yi. xam nga da nga doon wax la fois passée ne du dégluwaate du def dara mais moom il dit qu'il écoute. si qu'il entend qu'il voit aussi. bu ñu la koy soog a kii. mais ça ah, si dafa soxla ay conseils. contre imbécile on dirait aussi que dafa bëgg a réconcilier ak peuple sénégalais bi genre Cheikh Tidiane Gomis yi ak ñeneen ñoo xamante ne commencé nañ ko euh, mettre à l'écart xam nga 90 euh, mhm. euh, contre contre kii contre RDC mhm. da ko commencé gars yi di ko bi mu jógee Coupe d'Afrique ba di ñëw ñu koy yuuxoo ci aéroport ba boobu boobu lay parce que moom il se disait que peuple bi moo ma fal moom moom loolu la doon wax waaye yow peuple bi moo la fal d'accord na. Mm-hmm. waa kon leen du doo déglu peuple bi. nit dañ gis nga entraîneur dinaa la wax benn affaire gis nga gis nga la euh, bu la faal ndeysaan faal dem na euh, kii euh, kii faal bi fi nekkoon. waaw faal t'explique faal Aragon mhm. mhm. mu explique la en 1970 bi Brésil di jël coupe du monde. waaw bi. Hmm. parce que bi la déglu. Hmm. il avait Pelé le meilleur joueur au monde. mais population bi la déglu population bi dafa ne lii diw nii ak di nii diw moo war a dem coupe du monde nii nangam nangam mu déglu mu def lu population bi def ki mu gagné coupe du monde néewuñu lu ñëpp wax lu ñëpp wax mooy am déedéet da nga ci da ngay déglu rek parce que lépp lu ñu koy wax ñun ñii. mais mais mais mais mais mais 2002 man 2002 am na benn image boo xam ne. man du ma ko fa nga ah man dañ ma ciy saboté waale sax. heureusement temps heureusement temps yi amoon loon réseaux sociaux. bu amoon xam ah. naa kon gars yi TikTok ma kon xaw naa dee. image bi lan la woon. mais 2002 bi ñu bi di éliminer série de pénalty yi. Ah. te moom Aliou Cissé rat di raté suñu pénalty waaw. mais ñun ñëpp jooy journalistes yi di jooy les doyens de la presse sénégalaise di jooy. Hmm. au nom de Dieu di jooy ñu jooy ñun ñuy jooy nii. Eto Eto sol slip du ñuy ñaawal may xa may may may may yu may jàpp ma ne ko nii may xuloo kii gars yi di may jàpp. te bëgg ko song. waaw. ku ñu gën a bëgg équipe nationale. tey ma ne man sama noon bu ma xamoon ne. bu doon Aliou Sow mi sama noon dëgg la ba ma xam daf ma bañ. bu ñu ko joxoon équipe nationale man lijjanti wu ma loo xam ne lu may lijjanti équipe nationale bi laay lijjanti. man aw ma non non c'est que il faut que mu déglu déglu buy xam nga mooy lan. Hmm. muy bañ parce que il a dit. quand il dit am na yoo xam ne boo ko waxee euh, la communication elle est importante. Hmm. il dit remplaçant yi man mii mën naa koy def man mii. nañ la moi et ay sable de. moi euh, dëgg la moo koy def loolu xam ne mais doo ko wax. ah le fait que mu koy wax ñëpp. doo ko wax. da ngay mhm. ne non on se concerte. d'accord. noonu la. voilà beneen point bi di équipement sportif. Mhm. le diktat des grandes marques. voilà léegi xam nga. Mhm. Euh, il faut que loolu ma xaw man ma wax ci parce que dafa man je trouve que dafa doy. xam nga Sénégal. dafa am benn affaire boo xam ne mu ngi fi am avec les grandes marques. les grandes marques yéen xam ngeen ko marque sportive yi. waaw ay Adidas ay Adidas. Mhm. ñu jégal ma ci. Euh, Jim ak madame Cissé baal leen ma ci euh, ci euh, mhm. publicité bi dégg nga ah? baal leen ma parce que expliquer rek. Mhm. équipementier yu mag yi. dañuy dañoo yàpp Afrique. yàpp africain yi rawatina yàpp sénégalais yi. nan lañ leen yàbbee noonu. ba waa xaaral léegi nag. ñun nag ñun ñoo ko nangu. waa ah, ñoo nangu yabeel ñun ñoo nangu loolu. d'accord kii na. ma joxe benn exemple. yow nga nekk club. Mhm. nga nekk équipe club. Mhm. ngay sol man may sol marque boo xam ne aw ma ci dara. waaw. waaw ah, aw ma ci dara. en retour dara dara. les clubs français là européens les kii yooyu. waaw Italie nangam. Mhm. marque bu ñuy sol marque bi da leen di fay. fii nag dañuy sol ay équipement yoo xam ne dégg nga dañuy sol ay équipement te du xoolal marque bi du leen jox dara parce que daal sol nii rek sol naa sol naa Adidas sol naa Nike sol naa Givova et alors que. ma ne demal fii rek dans la sous-région. demal fii Côte d'Ivoire club. pour mu sol yow sa marque. Mhm. da nga koy fay xaalis bu weex tàll. mais fii Sénégal laa gis. Mhm. am na ci ay club du ñëpp nag am na ñoo xam ne dañoo am seen fulla mhm. am na ñoo seen fulla dañu naan marque bi fay ma ou bien defal lii defal lii. mais fii am na benn man am na benn affaire boo xam ne maa ngi koy enquête. waaw man mu jaaxal ma mooy arbitre yi arbitre Sénégal yi. arbitre Sénégal yi dañuy sol benn marque bu ñuy wax Givova. waaw Givova marque italienne la. Mhm. waaw mën affaire bi jaaxal ma bëgg a xam. Mhm. lan la ci arbitre yi di am. Mhm. parce que arbitre euh, Italie yi. waaw Givova sol mais ñoom am nañ ci luñ ci am. d'accord arbitre France yi. Euh, marque bi ñuy sol ñoom am na luñ ciy am. yu Espagne Liga liggéey ñoom am na lu ñu ciy am. waaye man waxuma nag dama ne. sama problème xam nga mooy lan. mooy que sunu arbitre yi ñun ñii. Mm-hmm. di ko sol. di sol marque boobu Givova. Mm-hmm. yéen a ngi sol Givova léegi man dama bëggoon xam. Mm. Eh, lan lan lan la ci arbitre Sénégal di am. mën nañ ko am te doo ko yëg. voilà merci sa question. loolu moo tax démb. Mm-hmm. man damaa woo président wu arbitre malaa maane Mané. Mm-hmm. ngi koy wax. malaa maane man naa ko woo démb message baa ni nii. ma ne ko. Mm-hmm. ma présenté wu. Mm-hmm. dama ko woo woo ba sonn jot jëlu ma. boobu def naa sama enquête. ma woo ko pour am lu leer. d'accord mais kii yow jotoo ko. il ne m'a pas répondu. Ah bon? ma envoyé ko message. pour euh, poser ko question bi wala. waaw pour wax ko de li ma ko bëgg am mooy lenn. man man li ma ko bëgg a laaj lenn la. mooy. lan la ci arbitre arbitrage sénégalais di am ci marque boobu. ndax am nañu satisfaction. parce que yeneen club yi laaj naa leen. Mhm. yeneen club yi ñu ngi sol ay marque ñoom duñ ci am dara ñoom la tontu doo dégg ba léegi tontuwuma. kon góor xam nga ne Cheikh Tidiane Gomis ñoom bu Cheikh Tidiane Gomis woote rek. rek ñoom dañuy naan déet kii ay mbóot rek lay seet. <laughs> dégg ngaa pànk mm-hmm. mais lu tax parce que parce que arbitre Sénégal. Mm-hmm. marque bi ñuy sol waaw d'accord marque bi rafet na nangam d'accord naa ni nangam. Mm-hmm. waaye lan la ci Sénégal lan la ci arbitrage sénégalais di am. arbitre Sénégal lan lañ ci am. je veux savoir man man je pose une question. j'ai posé la question à Malang Mané qui est le président des arbitres je euh, woo naa ko mënuma mënuma fexe ba kii ko man bind naa waa Jivova mail. j'ai envoyé euh, waa Jivova envoyé na leen mail am na lu ñu ma euh, waa waaw parce que man maa ngi enquête. mais mais ah, yow tamit yow yow est-ce que jërul enquête yow tamit ñu laaj la. ndax Sénégal bëri na ñuy yëngu ci affaire football. bëri na ñuy yëngu ci affaire match yi ak affaire mais yow li nga ci doon ak li nga ci sonne. ak ni nga ci mel bëriwul ñett wala ñeent Sénégal yu ci sonne ndax yow li nga ci sonne yaa ngi ciy yëg sa bopp. ndax man maa ngi ciy yëg sa bopp. xam nga nag dinaa la wax benn affaire gis nga fii. gis nga fii Sénégal euh, ci wàllu sport bi ñi ciy wax dëgg amuñu dara. xanaa xam lu ñu am seen salaire rek. Ah, ok bu dee da ngay génne kii yooyu. Ah, non ndax moom. Ah. seen salaire rek ngay ñi nga xamante ne suñu génération bii. Mm-hmm. li ñu ko xàmmee. ci affaire football ak li nga ñu mën a leerale ak ni nga mën a toogee ci plateau wax mm-hmm. ba ñëpp xam ne lii ngay wax kàttan nga koy waxee ak doole. Mm-hmm. ñun seen normal waroon nañ laa fekk ci benn étape boo xamante ne Aliou saa yuy wax da toog ci wetam ndax li muy wax. gënu ko xam. te am naa yaakaar ni mënoon naa am benn conseil boo xamante ne ci yaw bala mu wax du la tàggoo. Mhm. dina am li muy wax xam ko ba pare juboo ci ak sénégalais yi pourquoi. ok comprendre yow kay waaw. Mhm. waaw waaw. doo dégg dama pour revenir un peu ci. Mhm. maanaam marque yi. man. yow marque nga de waaw. ah marqué wax a bokk na la lu am solo. man man man man man maa tuuti. man fii télévision bii ba li may sol li may sol. bu ma ko nit joxee. Mhm. da may fay de bu ma solal la. Mhm. da may fay. sàkkatuma nag équipe. Mhm. tu dépenses de l'argent. les arbitres. ñoom. dañoo opté pour arbitrage. léegi nañ xaar nga suivre euh, li nga xamante non non doo dégg affaire bi kañ mu affaire kañ il faut mu leere. d'accord waaye nag ki ki ma ko mën a leeral parce que ñëpp nañu. Hmm. arbi ñi ma laaj ñëpp arbitre yi ma laaj ñëpp ñu ma ah Gomis dama laaj maanaam. kenn nangoo la jël responsable. Ah, wax la man mii man mii ma jël sama téléphone. Hmm. ne ni woo ko jëlul. du jël. Hmm. ah damay wax fii de. <laughs> Ah, jëlul de. looy laaj. waaw jëlul. ma envoyé ko message ne ko dama am benn question bu may laaj ci arbitrage ba léegi tontoogu ma whatsapp ak euh, message normal. non c'est de la bukki la duñ tontu. waa léegi nañ ma wax. Ah, man nañ ma wax man man damay demandé. ba léegi accusé wu ma kenn yéen ñi xoolal yéen a ngi toog fii yéen ñëpp yéen a ngi dégg. Mm. est-ce que accusé naa nit. non non damay laaj. d'accord. arbitre yi marque boobu ñuy sol lan la ci arbitre yi di am. d'accord léegi dinañ xaar man xam naa ne. am na lu ma ci xam lu bare waaye nag mu dugg bakaa wax tànk ndey mbilli bi laajuma ko. d'accord bu ma waxee nag bu baax nag naa ne ah su ma waxee ne que lii leen ci am ba mu leer. waaw dinaa toogaat fii ci télé bi ne eh. waaw arbitre de marque bi ñuy sol. Mhm. ñu ngi ciy gis seen bopp. d'accord nañ la ci xaar incha allah jaajëfal baax Cheikh Tidiane Gomis euh, dañuy dem léegi ci rubrique euh, actualité ànd ceeg Aliou Sow.